mbokk yi suivre Lutte TV point ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar comme ni ngeen ko xamee nag tey Lamine la ak Mohamed ak Babacar ñu ngi jàkkaarloo nag Brice li nekk espoir ci làmb mën nañu sax nekk un grand champion war a dëg dëgmal si benn combat le 21 juillet digganteem ak Ahmed Deme prince tëggu ko ñu fas yéene nag jàkkaarloo moom tey fekk ko fii biir écurie Fass su mu doon contacté bay pare gis ngeen li mu jot a def ci contact yeeg si xam nga yëngal yaram yi daal moo tax nag tey ñu bëgg a seq waxtaan Brice Brice maa ngi lay ziar. salaamaaleykum sama gars yi siyaar naa leen maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen siyaar yéen ñii tey ñëw sama écrit bii yee kontaan naa trop si yéen vraiment dañ leen yi ñaanal yàlla rek yàlla na leen fi yàlla ba seen seen émission yi ngeen di def mu doon lu gën a rëy si ñi di nuyu waa Sénégal yëpp waa Sénégal namm nañ ma sama fan si club yëpp namm nañ ma waaw chaque jour damay génn si mbedd mais damay am problème chaque jour ñu ne ma waa Bruce kañ ngay ñëw si ji bëre mais pare na combat ba mu taxawee yàgg na si diggante bi am na si ay tolof tolof mais yàlla sotti na lépp la vingt 21 bii juillet bii laa war a bëre muy samedi di wax sama supporters yi fépp fu ñu nekk fépp fu ñu nekk laa la wax Bruce Lee mooy bëre am Ahmed Dem samedi fii si stade Iba Mar ne supporters yëpp ñëw bàyyuma kenn di gërëm sama père As Ndaw borom Ndukumaan waaw du gërëm sama sama père Mbor Thiam maa ngi gërëm bépp supporter képp koo xam ne nay jàpp ci kii xam nga rek mooy loolu waa du du bége waa waa police parcelle parce que dañuy sonn su man surtout king xam nga mooy loolu sant naa ñëpp bége naa leen ñëpp. fi may li may njëkkee mooy pour ñu farleku Brice Lee ci làmb kañ la dugg si làmb ji ak Brice Lee euh, palmarès bi nu mu demee ci ay ndam ak ay victoire. waaw làmb ji presque man ay 2007 laa dugg sa arène ay 2007. parce que boo doon xool bëri naa presque ay vingt quatre combats vingt victoire quatre défaites boo doon xool mbër yi ëpp victoire sa làmb ji si laa bokk mais làmb ji dafa am kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey waaw yaa ma gën a xam daal bëri na fi ay champion yoo xam ne ñoo ngi leen di tudd sa làmb ji mais xam ñi ñuy tudd nii amul kenn ku ma si rëppal amul kenn ku ma si mais ku mu neex nag jël sa yoon bu la neex bëre ku la neex mooy làmb ji looloo si am kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey. am na ay boo yoo xam ne ñoo ngi leen tudd fii sa làmb ji bu dee ndam rek mooy tax nit ñegg sa kaw kon sama ginnaaw duñ ma dab sax mais sama ginnaaw la ñuy mais yàlla lu mu def rek am na lu gën yeah. 24 combats 20 victoires 4 défaites mu ne Lamine loolu moom ci mbër ci 2007 ba 2018 ça fait 11 ans raisonnable na te bëriwul tamit ay mbër yu ko def mais loolu bi mu amee ba pare lan moo tax carrière yu moom laa lay wax ne parce que man nekkuma nekkuma mbër boo xam ne kon sama quatre défaites yi may jël dama tegul dama daan ñu daan ma ma daan ñu daan ma bëri na fa ay mbër yoo xam ne ay champion lañ tey quatre défaites la am te tey mooy loolu moo tax ma ne làmb ji dafa am kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey bu dee làmb teg si bëre rek am na mbër yoo xam ne tey ba ma boole ñoom géej nga xam ne xamuñu dara te ñoo ngi leen fii du leen coow mais nag làmb ji moom moo fa tëree nit waaw moo fa tëree ñun ay xale lañ ñun defaguñu dara sa làmb ñun ay xale lañ man ba may dugg sa làmb boobu booy bu ndaw laa ma teelu dugg sa làmb ubbalee làmb waaw loolu moom ma tey moom ma may saa CNG xam na ni ñoom xam nañ sama licence bu ñu xoolee ñun dinañ xam kuy xale ak kuy mag ku kuy mag mais làmb ji nag mooy nii rek kon ma la siy waxee teewul ñun ñooy liggéey lu may toog nag Sénégal léegi bareetul waaw sa absence boobu ngay nekk États-Unis lu bëri est-ce que sa carrière tamit. waaw ah, mais dara xam nga yi moom lu gars yi di wax woon time is money ñun tooguñu fii ñun dañuy def suñu business ñun tooguñu fii di xaar làmb xaar làmb wala xaar làmb dañuy gis loo xam ne daf ñuy jëmloo kanam ñu ñu dem ñu bëre bu ñuy gisul loo xam ne kii ñu dagg suñu billet dem li lijjanti suñuy kot ñëw teg ko si kaw raay bi jaay ko. parce que làmb dañ na làmb business xam nga nit ki doo doo toog sa ne sa làmb ji rek ngay yem. doo toog rek seen làmb na mbër mbër yu am seen métier ñaata mbër ñoo fi toog mbër da ngay am métier man dama bañ mbër boo xam ne toog da amoo métier man loolu laay bañ nit ki da ngay liggéey liggéey si jaamu yàlla la bokk. làmb ji moom mooy loolu làmb ji ñi naan nii nii nii nii nii dina dem wala du dem mais ñaan suñu président bi rek ñu élection 2019 bi bu ñu si nañu continuer jàppale làmb ji waxuñu élection 2019 génn rek ñu bàyyi làmb ji si ginnaaw loolu laa bëgg quoi dama leen di ñaan rek ngir yàlla ak yonante bi. nga am combat sa diggante ak dem Deme depuis daaw la woon ba ren combat bi taxaw boobu ba tey ñaan di ngeen bëri du ngeen bëri ba yàlla lay dogal ngeen war a bëri samedi le 21 combat bi biñ ko jàppee ba tey mu yàgg noonu ñu ko renvoyé ak renvoyé waat loolu nu ko mbër di dundee ban méttit la lay nga ci yëg ak nu muy demee daal. waaw ah, loolu moom métti na trop trop trop trop trop trop man yaakaaruma woon sax man dinaa bëre wax dëgg bu ñu waxalee yàlla rek yaakaaruma woon dina bëre. mais ndegam tey vendredi la suñu promoteur légaliser suñu combat ne da ngay bëre ci foog ñu ñëw bëre parce que man yaakaaruma woon man yaakaaruma woon sax dinaa bëre ren saison bi yaakaar moom parce que ko làmb ji depuis daaw la jàppal ba jàppal ba jàppal ba mais dañuy ñaan rek xam nga lu yàlla def promoteur vraiment jàmbaar la dañ koy ñaanal yàlla xale la te xale moom buy jóg foog mu am ay rëq-rëq foog mu am ay yoon nangam nangam mais kon ko def na ba loo xam suñu combat taxaw na le 21 juillet dañuy gën a dolli sant yàlla rek ñaan yàlla jàppale ko jàppale sama adversaire jàppale ma jàppale mbooloo mu jullit. ki ngay bëreel xam nga ko. yee xam bëri naa sama copain Pape Morlo mais xam naa ko bu baax a baax. bu baax a baax xam nga rek mooy loolu. kon mel ni kon moom yàgg naa dugg parcelle. no non dafa dugg sax dafa dugg duggaat mais dugg bi fii lay yem. bii mooy troisième fois bi de kon. dugg fii lay yem si kàttanu yàlla. Ahmed Deme ngay wax de bërekat la de Brice Lee. man dama mën man adversaire yu ma bëreel ñoom ñoo gën a garaw Ahmed Deme moom na xool sama indi samay combat xool no man Ahmed dem def terewuma nelaw de dama koy jox respect bu mot sëkk liggéey bëreeg moom si respect jàpp ko ñan yàlla yàlla may ma ndam ma daan ko jël ba amul benn werante mais bëreem amul lenn loo lu la ciy jaaxal yow. barki ma Mohamed amul fu ma toog sax mooy loolu damay teg sama lëwal ak deuxième teg ko muy caay muy boy bu ma kiiwee dem naan lëwal naan deuxième xam nga Sénégal boo waxee benn wax ñu ne est-ce que jox nga sa adversaire dama jox respect dama ko jox respect te balaa ñu xam ne dama ko jox respect samedi jot Ameth Dème mbër la champion la mais nag dafa dajeeg daanan. yaa ko gën a doon daanan yow. Ah, <laughs> na Sénégal vi jugé nañ ñëw ay ay emploi du temps ñu indi samay emploi du temps na Sénégal ñëw ñu jugé man du ma jugé ñu def micro trottoir. nga demoon nga ba xalaat ne dootoo bëri kon est-ce que ci côté entraînement yaa ngi doon liggéey li nga war a liggéey en tant qu'athlète bu am combat. ah mais man xamoon naa xam nga boo déggee ma yaakaar moon dinaa bëri. yaakaaroon naa dinaa bëri fekk dama amoon xel ñaar sa sa làmb bi mais xam naa ne man même bu dul lool damay man chaque jour maa ngi géej maa ngi entraînement lu war maa ngi koy def de maa ngi entraîné lu war waaw maa ngi lu war waaw bu bis ba dinañ xam ku nekk lu mu liggéey. <laughs> est-ce que Brice Lee combat bu yàgg arrangé na ko. yee bu ko mu nee ñu te déggoo lu ma la wax ñu teg level deuxième troisième. parce que ñoom maanaam étranger la quoi dañu Brésil est-ce Amérique la nekkoon est-ce dina ñëw du bëre combat bu yàgg non ah tamit man du ma du ma ngaaka ku bëre vingt quatre combat man du ma ngaaka xam naa combat bi man xam naa lu lu ci taxaw ak lépp. est-ce que yaa ngi daan def ay jamono wër ndombo yi nga xandaaloo yooyu prise yu doy waar yi nit ñëpp di la coow ci Sénégal ci sa mën bëri est-ce que loolu ba tey mu ngi ak yow ci sa yaram wi. ah yow ñëw nga léegi si écurie man yaakaaruma woon sax mooy lool ñëw nga léegi sa équipe bi gis nga lu ma bëreeg booy bi waaw gis nga lu ma bëreeg booy bi yegg sama non dafa am loo xam ne yàlla moo koy def si nit mere mool munoo ko te jàpp jën xanaa mu bañ a napp rek mais man lu may def moom ah wax dëgg yàlla moom dafa nekk sama yaram dama ko mën lépp looy wax ñu ne ah Brésilien mën na bëre nii naa kërëb kërëb mais xam mais man lu may def man du kenn amul lenn lu ma war a dama ko mën te usa du ko def si man. du ko nuyu sama grand frère fu mu nekk yàlla na ko si yàlla jàppale waaw du nuyu suñu ay noon père ba gars yëpp ñoo ngi leen di siyaar ko waaw du leen béggee yéen ñëpp du béggee yëpp la vingt 21 nag dama bëgg xam nga sama supporters yi ñu ñëw ñu jàpp si rek ñu def masse dem stade xam nga def respect ñu ñëw supporter ngeen ngi gësëm si kaw man ma gësam suuf ñu bëree daan mayal. Hmm? Ameth Deme gis nga ko muy bëri ne nga xam nga ko ay foram boo ma ci doon dikkal ban for nga xam ci moom. xam naa si dara de mbërum tànk la de ah, mbërum tànk la gis naa ni day mbot gis naa ni day mbot gis naa ni day mbot waaw. côté xeex gis nga ko ci. non. mënul xeex. man de gisu wax dëgg yàlla gisuma xeex gisuma mu dóor fi mbër de mu daanu wala mu def nii. yéen ñaar da yaakaar kon wala boog yéen ñaar ka moo daax a xeex. Ah, dara maa moom am Diop indi Ndiaye combat warul yomb am jóob rek indil njaay. waaw loolu bu amee kenn du daanu. waaw bu bu amee rek ku daanu mooy loolu mais moom am jóob indil njaay rek na saf sap hmm. barki Serigne Touba. Idriss Ly Ahmed dem ngay waxal kat xeex kat ah, waaw baax na Ahmed dem laay waxal de man bu ma waxee ma keneen ngaan may Ahmed Deme man Ahmed Deme lu may xool su moom respect la si làmba ñu boole dama koy jox respect jàpp bare daan ko ñibbi loolu la si xam moom lan laay Ahmed dem lan la fi def de defuma ko. yow laa koy laaj. dafa am fu mu toj. wax ko ko moom. moom amee dem lan nga fi def de defuma ko lan wax na ma wax lu mu fi def def bu dee mbapat yi man dama toj mbapat yi presque jël naa ma ne xool cinquante deux drapeaux mooy sama kër fu nekk toj naa man amee lu mu fi def loolu dafa loolu dafa ma jaaxal <laughs> mais wax bu neex rek la dañuy wax ni wax bu neex rek. Ah, ah ma gis am na lu ma seetlu tamit Lamine dinaa ñëw foofu ci cent pour cent mais dama seetlu ren Aigri Fass daa daanu Papa daanu Lagros daanu. Forza moom daan na yow ci mbër yu mag yi nga bokk nga war a dem samdi lan moo la war. non man du ma mbër bu mag man mbër bu ndaw laa ñoo ñooy champion man mbër bu ndaw laa man du ma mbër bu mag mais ah dara dama lay ñaanal rek parce que euh, làmb nii rek la da daan tey suba ñu daan la. ëllëg ñoom bu ñu amee te combat yàlla na leen yàlla may ndam parce que làmb nii rek la làmb du biir day xawi wasin làmb foog ngeen doon sportif foog ngeen gëm yàlla yàlla mooy mayee ndam amul kenn kuy taxaw si kaw suuf moom mooy joxe ndam yàlla rek mooy maye ndam bu ko neexee mu jox la ko bu ko neexul mun nga dem fu la neex dem si sëriñ bu la neex yàlla bu la neex doo ko am rek doo ko am. gën a yokk jom yokk la yàlla am na leneen lu mu leen dencal de mooy ñëw seen kanam. yeah parcelle nga dëkk 1 ba 26 ku ko wax dégg nañ 100 pour cent parcelle ñoom Modou Lo Papa Sow Gora Sock consort ñoom ñëpp gis lañ leen ci 100 pour cent parcelle mais yow kenn gisagula ci ba tey. <laughs> mel ne <laughs> <laughs> ah mais xam nga rek 1 ba 26 ñun ñun ñun ñun ay doomu parcelle lañ ñun parcelle lañ ñu juddoo par foofu lañ yoroo dañuy judd ji suñu bàyyi am fi kër ñu juddoo su gox bi yoroo su gox bi màggandoo kon Mourou yaa ngay wax ma Mourou maa moom ñoo foondoo waaw ñoo nekkoon xale doon dund maa moom xam na ma sama sama gàll de jàmm lañ seq man parcelle amul benn mbër boo xam ne man benn yoon laa bëreeg mbëru parcelle da dootul ñaar man dootuma bëreeg ak mbëru parcelle. benn yoon muy maak papi général mais man bëri parcelle man parcelle fu may yeewoo su may supporter mooy ñooy ñooñu mooy seen supporter man ñooñu du ma bëri waa parcelle man lépp lu waa parcelle taxaw rek maa ngi seen ginnaaw. 100 pour cent parcelle bi lu tax gisuñu la ci. ah mais dara c'est que maanaam dañu bokkul emploi du temps rek. parce que ñooñu saa bu ñu bu ñu gisantee dañuy daje saa bu ñu gisantee dañuy gisante saafante normal se que xëy na dañu bokkul emploi du temps rek ku nekk ak lu nga gëm rek ñooñu ay kii du gërëm war nga waa Fass Fass Médina Gueule Tapée ñëpp mooy loolu Colobane ñëpp maa ngi leen di woo si bis bi waaw du gërëm waa 14 surtout waa 14 inte 14. sama koñ parcelle unité 14 ma kenn amul maire amul mag amul ndaw na ñëpp ñëw la 21 sa combat incha allah.